bu bis ba jotee la vingt. waa loolu c'est confirmé dama koy waxaat. ah incha allah dinañ jàmbaroon dinañ laalante bu baax. Ah. dinañ laalante dinañ bëree te bëri mu moo war a gën a ëpp. xa xeex bi mu naam dañuy naxante mais dinañ xeex mënul ñàkk donte cinq minutes dañ xeex. Hmm. parce que a combat dafa am lu ko waral. Hmm. te dafa naa ni góor bu la nee dinaa la def nangam dinaa la def nangam soo amee jom da mu ma yab gu may laal te laale guñu la naqari wala non non du wax lu ne loolu lépp la jël ah. waaw loolu moom dañ ci wax yàggatul vingt ñu ko am nañ yaakaar mun na tenir suñu combat incha allah te liñ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 moo tax sama bi ma kiiyee su ma jiili waat tey ku ne woo ma ma jël sama jox ko jiili waat parce man <coughs> mënu ma jël ñëpp jox leen mais li am dama koy defaat ci kër gi. Mm-hmm. Mm-hmm. noonu dafa rafet mais dama lay wax ni bu dugalee ci nopp rek ne ko guy gi nii lay bëree bu rek la ñëwee dama koy jumloo. immédiatement dugg ah, dina ko déey man moom ndax moo ko yor.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 Thank you.